aca arbitre bu waaj a sifflé diggante Ameth Double Moteur ak Yaa wu Ndayane Ameth Double Moteur mbokku Grand Mansour bi ndeysaan Grand Mansour production maa ngi koy siyaar Moteur à droite Yaa wu Ndayane à gauche ndeysaan di siyaar sama caméraman sampalem ba table king waaye sama mafia droit BG ñoom Mika ñoom Zipe ñoom Talla ñoom Demba gaa yëpp siyaar naa leen waaye fàttewuma sama doyen sama président sama DG Antanas Diome Ndour maa ngi siyaar di ko bëggee kooku sama DG la Ahmed double moteur yaa xadi bu ndaayaan yaa xadi jël na ko Ahmed bañ siyaar sama grand Landing Sall la sa waaye chef li borom Ahmed takk na ko Ahmed daan na ko doole doxul jàmm Ahmed double moteur jël na lamb ji am na jublu mu dëgg gën a làmb ji